Hı, ha. ah. waaw eh, moom situation bi lan ngeen dund fii ci Darou Khoudoss. ah. ah. fees na dell. Ah. daal ban heure la nii ci suba gi nii sept heures quoi. Euh, ah. Miniguel taw fan taw fan bu ko fekkee. Hmm. nga yow daal nekk situation fii kay. Hmm. yëpp fees na del. ñaan rek ñu fexe. waaw ñoo ko ñaanal ndoxam jàmm rek. waaw mais nag lu euh, ngeen di sàkku ci ndox mi rek. ah bëgg ñu dimbale rek. Hmm. waaw ah, mais su ngeen def nooy a ndox mi rek. ñi nga xam ndox mi rek. ah gis nga ndox mi de sonn nañ de moom. néeg yaa ngi nii amuñu di bu fi ne nelawuñ suñu gone yi nelawuñ amuñu fu ne lépp ne sëkk bee ko yóbbu. Hmm. sëkk bee ñu yóbbee ndox mi ndox moom boo leen kër mu fa doon dem ne fii la yëm si ndax sëkk. léegi lan ngeen di sàkk loolu. ah doy na waaw xanaa nag moom mbiri yàlla la ak ñaan nangoo la jël borom. ndax yéen ngi taxaw ñu dimbali leen fexe ñu ndox mi. waaw buñ ko moom kay buñ buñ amoon ñu dimbali dimbali ndax ndox mi moom bari na lool wax dëgg yàlla. Mhm. amu leen benn sécurité fi mu ne.